usine bi daal moo ñu sonal ñun sonn nañ torop ci usine ndax mënuñoo nekk Mboro dëkk Mboro suñuy doom liggéeyu ci usine bi ba pare ñu sonn guddi sonn bëccëg mënuñoo am ndox mënuñoo am courant te dëkk àll yi war Mboro sax ñi ngi am ndox ñi ngi am courant lépp lu génn Mboro lu ñu yóbbu ko ci àll ba mënuñoo am dara sonn nañ tàyyi nañ waruñoo fay soins médicaux parce que loolu moo nekk ci kayit yi ñu signé ko ak ICS ndax fu ñu da réew bu ñu bëgg a yóbbu usine ñu taxaw lànk indi ñu ko Sénégal indi ko nag Mboro commune Mboro kon war na ñoo mën a jàppale dañoo yenoo yenoo yenu ba xam moo tax tey ji gis nga tey li ñu def sunu doom yaa ngi nit dañ def retraité sa papa bu retraité ñu embauché doom ji waaye loolu defatuñ ci dara journal yéen ni ñu di jël baaxul ku ci def accident duñ la recevoir duñ la faj duñ la garanti li ñuy ca mairie ba di ko jooy ci fépp di ko jooy ci koñ bi moom la ñuy jooy tey moo nu jógloo ñuy dox ñat bu takk suñuy brassard rouge fas yéene jàkkaarloog yéen waa ak waa teg lañ bëgg ñu abal ñu mbooro fatt nañu sonn nañu danoo tay danoo